أعوذ بالله سميه العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله القالد عن شيخ الشيوخ برزق البرازيق تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد الصالح بن التجاني وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه القويم إلى يوم الدين ورضا الله القالد عن سليل عثمان سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وعن جميع أبنائه وأصباته وأحبابه رضا لا سقط بعده أبدا وأيد الله ونصر الخليفة العام لطائفة التجاني والخليفة العام لجميع أسرة العمرية مولاي سيدي أبو بكر سي ومولاي سيدي محمد البشير تال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 ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حد منصور قناة بنو سنتي يالا سن بروم چانت قو يالا جمم جو ترد جو ماق جا جولي چي سنگو سنگي من سيد الوجود وعلم الشهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيان يالا بروم يالا يالا دولي اي غرات كي مقاما كي نقام ني موي وسيلة سن يدي يونين تبي مولانا سيدي الشيخ أحمد التجاني شريف radiyallahu taala anhu ñaan yàlla suñu boroom ñaan yàlla doole kàttanal suñu xalifa yi nekk ci réew mi yëpp jiital ci sëriñ Babacar Sy Mansour teg ci mbokkam mu baax mi Thierno Bachirou Tall ak mbooleem xulafaa yu nekk ci réew mi yëpp nuyu leen ñaanal leen yàlla wér ñaanal ko suñu bopp ak jullit yëpp ak àdduna bi yëpp ñu ngi yëkkati nuyoo yu tedd yu sell muy jàmm yàlla ak barkeem ak yërmandeem yàlla na ko ci réew mi di Sénégal ba mu wër réew yi àdduna bi yëpp yàlla def fi jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem auditeur ak auditrice boo xam ni yaa ngi déglu rajo bi ci waxtu wi rawatina nga ànd ak sa mbokku daara al oustaz Mouhamadou Mansour Fall ak Pape Makhtar Sylla ci seen émission Miftahoul Houda nuyu suñu wéyjur baaba baaba warga nga xam ni toujours mi ngi ànd ak ñun alxaaji André Ba ñu ngi leen di nuyu di leen ziar eh, alxaaji Daouda Ndiaye bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ak mbokk yi nga xam ne saa su ne ñu ngi déglu émission bi waaye saa su ne ñu ngi dugg di woote di joxe seen ay contribution ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu suñu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed Tijani Ngom bu maam alxaaji Rawxaan Ngom radiallahu taala anhu moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax nuyu mboolem umma islamique bi yëpp ziyaara leen waaye massawu nit ñi ci mbas mi waaye jaale ñi ci faatu ñëpp tey jullit ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla yërëm leen xaare leen aljana ñi ci faatu itam te du ñuy jullit ñu ngi leen di massawu di jaale seeni bokk xaaj Mansour سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين fajërti imam oustaz cheikh ahmed cheikh pam maxtaar ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ci bëccëgu àjjuma ji di la ndokkeel ci weer wi nga xam ni moom la ñu nekk di jaare ci yow nuyu ziyaara mboolem ñi nga xam ni ñoom nga tënk te joxal leen nuyoo nuyoo bi ak ziyaara bi fii ci seen rajo Safina FM ci seen émission Miftahoul Houda ziyaar la bu baax a baax ndokkeel auditeurs yeeg auditrices yëpp fa tabarakallahu ñaanal la yàlla li nga ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fajatu saiz imam alhaaj fa maxtaar nuyu bu baax baax Mouhamed mboj Mouhamed Silla bu bay Mor fa tabarakallahu di rakk ci tafasil la momit ñu nuyu ko ziar ko jaare ci ñoom nuyu mbolam wa rimbax yëpp fa tabarakallahu ak wa groupe bi ñu bayal Alhaaj malik mawdo mu boole koog mbolam njabot bayal Alhaaj Mor fa tabarakallahu ziar leen bu baax nuyu xaj Babacar Sow xaj Demba nuyu leen ziar leen bu baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne rek ñi nga ànd rek ñun seen émission mi Miftahoul Houda oustaz ñu profité ci occasion bi ndokkeelaat suñu directrice eh, ñaanal ko yàlla mooy seydaa Ñuma Ba madame Gange ci bis bi nga xam ne mooy bisu anniversaire am mm-hmm. ñu profité ci rek ñaanal ko yàlla yàlla sàmm ko aar ko te dolli ko bépp sutura ak teraanga ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fadilatu ustaaz xam naa foofu la ñuy jaare rek insha allahu rabbi del siwaat ci seen émission Miftahoul Houda ak actualité laay wax actualité bi nag tey weer wi lay doon actualité bi tey dañ koy accès rek fa tabaarakallahu ci ci ci weer bi waaye jaare si rek <laughs> xëy na ak li nga xam ne moo xew nga xam ne xëy na waxoon nañ ko ci muy lu mel ni vaccin yi ak polémique bi nga xam ni jur na ko oustaz mm-hmm. daañu si ñëwaat fa la ñuy njëkk a jaar oustaz mm-hmm. bala ñoo ñëw ci weer wi incha allahu rabbi ci mm-hmm. vaccin yi la ñuy ñëw waaye amaat nañ beneen question boo nga xam tamit daañu ko dugal muy question actualité Euh, ñu doog a jàll si nag ci li nga xam ne mooy suñu waxtaanu tey mm-hmm. di weer wi ak solo yu weer wi ak njariñ yi nga xam ni moo nekk ci weer wi ak mboolem yi nga xam ni moom moo ci aju mm-hmm. oustaz actualité bi ñàkk yi la mm-hmm. ñàkk yi ñàkk yi may vaccin yi uh-huh. <laughs> coow li bari na ci nag wax dëgg yàlla uh-huh. <laughs> coow yi moom mos sa am ci xay na daana am sax ci vaccin yi polémique bu bu toll bu am mais mos am polémique bu toll nii jërëjëf Mansour man kay ñàkk yaakaar naa ni coow li jeex na. coow li jeex na waaw. yaakaar nga ni coow li jeex na. tàkk parce que dañu waxoon ni bu ñàkk yi ñëwee balaa kenn ñàkku nañuy ñàkk président loolu la waxoon. waaw. ah loolu waxoon de. président ah, président ñàkku na. président ñàkku na ministre de la santé ñàkku na membre gouvernement bi yëpp ñàkku nañ wala ñu ci ëpp. ñàkku nañ dañu waxoon ni président moo njëkkoon am passeport bu ñuy defar passeport yu bees yi yu bees yi moo njëkk am carte d'identité uh-huh. moom président waaw comme moo njëkk am passeport njëkk am carte d'identité bu njëkk yi ñëwee nañ ko njëkk ñàkk ñàkku na mu des nag population bi léegi population bee des uh-huh. léegi nag xam nga lu may wax gis nga ñëpp àndandoo d'accord ci dara loolu yàlla sax amu ko. ñëpp àndandoo d'accord ci dara. yàlla sax amu ko. Mhm. moo tax bu waxee ba pare moom yàlla ci alxuraan danaan fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur. Ah. ku mu neex gëmal ku mu neex weddil loolu la yàlla di wax jeex na. ok fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur. waaye yàlla moom bu waxee loolu ba pare day am leneen lum ci teg. moom yàlla ndax moom mooy yàlla bokkul ak keneen. moom dafa am doole am kàttan. mu tëkku nag ñu weddi ni inna aatadna lil kafirina saira mu ni li ma leen wax ba noppi ni ku mu neex gëmal ku mu neex weddil ku weddi maa ngi lay xaare safara woo xam ne boo ñëwee dinaa la ci lakk kooku yàlla la. Uh-huh. moom na droit ci loolu. kon ñàkk yi ñëw na am na ñuy ñàkku am na ba léegi ñuy nekk di déng-déng. waaw ku mu neex demal nga ñàkku. Uh-huh. ku mu neexul demal toog. Uh-huh. mais ku ba ñàkk-ñàkk yi tamit xamal ni yàgg ngaa ñàkku waa ah. ndax ñun suñ doom yi bu ñu juddoo benn weer ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom-ñaar juróom-ñett ba juróom-ñeenteelu weer weer wu deew ak bu ñu lay defal. kon ñun yàgg nañoo ñàkku. da ko bëgg a génn réew mi tey jii ñun demal ñàkku ji ba pare doog a génn. waaw te gis nga man dama xaw jaaxle tuuti ci réew mi gis nga dafa am loo xam ne boo koy xeex bu ko xeexee diine. bu ko xeex bu ko xeexee diine. soo koy xeex bu ko xeexee diine. am na ñoo xam ni dañuy opposer seen moroom ci politique jaral leen même kooku su bëggoon defalal diine dara dañuy fexe yàq loolu parce que duñu bëgg kooku am ndam ca loolu. am ñoo xam ni dañuy opposer seen morom ci politique ci politiciens yi da ngay opposer kenn ci wàllu politique même kooku su bëggoon jëriñ askan wi dara ci wàllu wér-gu-yaram da ngay fexe opposer dox ci digganteeg nit ñeeg loolu mais li baaxul kon li may wax ci ñàkk yi mooy na ñëpp dem ñàkku ci na ñëpp dem ñàkku ñàkku indi nañu ñàkk yi nee nañu moo ñuy mën a aar ci feebar bi feebar baa ngi fi dañ dem ñakku ndax feebar bi jóge fi mu jeex tàkk lii rek laa ci gis gisuma ci leneen man amatul leneen tamit lu ma ci wax dañ dem ñàkku xam naa nag li ma la waxoon fii danaa ko répété waat. mooy waxoon naa la ku ñàkkuwul di nga dem ba bëgg a doo gis ñàkk. di nga dem ba bëgg a ñàkku. te doo gis ku la ñàkk doo gis foo ñàkko. waaw di nga léegi senegal yi di kaas naan. ñàkk yi doyut ñàkk yi doyut di nga dégg léegi ñu koy wax ñoom ñu bañoo ñàkk léegi nga dégg ñaan ñàkk yi doyut Omar enregistré ma boobu Pape Makhtar ñu denc ko di nga dégg man laa la ko wax wallaay léegi di nga dégg ñu ni ñàkk yi doyul wala nga dégg ñu ni ñàkk yi ñu njëkk indi bokkul ak yi ñu mujj indi léegi nga déggaat ñu wax loolu kon ça ça veut dire que ñu daal polémique bi lu romb rek il faut ñu jaaw indi leneen pour pour jaxase xelu askan bi jaxase xelu askan wi kon léegi responsabilité wu askan wi mooy ñi yeewu ci loolu xam ni li leen war mooy ñu dem ñàkku li leen war mooy ñu am ñaari nopp benn bu baax ak benn bu bon ñuy wax nii internet beeg coow leeg xoola da ngay gis ñu lay wan ay ay image yoo xam yow image yu yàgg nga koo gis ci beneen événement ñu wan la ko ñu la image yi dëkk tel la dañ doon ñàkk waa xale yaay daw nii nit ñaay daw wala ñu wan la benn image ay nit ñu gaañu woon ci gaz bu ñu noyyi woon wala dara ñii tëdd fii ñii tëdd fële ñu leen di upp ñu wan la ko naan benn dëkk dañ leen a ñàkk yaa nekk ni fekk yooyu yëpp dara ba dara booloo jeex amuñ ci. macha allah fa ñu yëpp dem ñàkku pour seen wàllu wér gi yaram ñàkk yi indi nañ ko président ñàkku na. man maa ngi xaar yaa ngi dégg eh, ministre de la santé ñàkku na autorité yi ñu bëri ñu ngay ñàkku docteur yi ñu ngay ñàkku professeurs yi nee nañu ñàkk yi dara nekku ci ñàkku leen. waay waay nañ dem ñàkku waay waay nañ dem ñàkku fadlat imam feebar bi jóge fi yàlla na yàlla jeexal fi yëpp ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz man maa ngi xaar sama directrice su ñàkku jee ba pare rek ma ànd ak moom incha allah oustaz dañu ñëwaat ci beneen question lay doon boo xam ne nga ciy boros rek lan mooy secret bi Seydou Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu anhu mooñee wala yonent bi dugal ko ci tariqa Seydou Cheikh Ahmed Tijani ba doo dégg mukk kenn ku bokk ci ñoom nga gis ko mu dérape ci yonent bi wala ci ci ci yàlla subhaanahu wa taala lan mooy secret boobu oustaz mooy cofeel gi cofeel xam nga euh, Mansour Tiijaan mhm. soo ko jàppee li muy njëkk suuxat ci yow muy tawxiid mooy tawxiid wéetal yàlla du pour nit déraper il faut muy bokkaale yàlla pour nit draper. il faut nga bokkaale yàlla nga nekk bokkaale kat mais boo dul def shirk pour nga déraper day nekk problème mën nga juum juum yu ndaw yu sew mais juum yu flagrant wala kàddu yu flagrant doo ko def doo ko wax doo gis benn tiijaan bu tiijaanam wér di werd di wasifa di wax lu naan ndo doo ko dégg parce que dangay am cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaatu wa koo xam ne bis bu nekk nga toog ak moom ñaari yoon mhm. soo ko gisul mi ngi lay gis te yonent bi jàkkaarloog nit rek loolu doy na muy texe mhm. ah mhm. koo xam ne yonent bi moo la gis yonent bi moo joxe woon garantie ni man ku ma gis ëllëg yoomal xiyaam di ma gis ku ma gis ku ko gis ko Mansour Fall mhm. su gisee yonent bi sallallahu ëllëg yomal qiyaam Mansour dana gis yonent bi yow rek yaa ko gis léegi nag yonent bi moom bu la gisee nag boobu moom waxu ci léegi xalaat ci nag waaw dafa am ñaar waaw man maa ko gis man maa gis Oustaz Pape Makhtar waaw waxal yaa gis yonent bi rek gis yonent bi mu garantil na yaa ko gis ci nelaw da tëdd gént gis ko mu garantil ma ni ëllëg yomal qiyaam di ma gis te ku ko gis yomal qiyaam texee dem aljanna te te moom. léegi nag moom yonent bi moo la gis. te beneen affaire la. loolu moom waxu léegi sa xel rek nga yónni. Mhm. comme Pape Makhtar ni mu doyatee ni mu tilime ni mu bëree bàkkaar ni mu bëri ay njuumte yonent bi ni ko soo géntee gis ma yow Pape si la ëllëg yomal xiyaam di nga ma gis te ku ma gis texe léegi xoolal yonent bi nag. fi ko mhm. yàlla teg léegi yonent bi moo gis Pape Makhtar Pape Makhtar gisu ko. te te te te mu mel ni boobu gën a garaaw. bon moom waxu ci mais sa xel laa wax nga yónni sa xel ci loolu. Mhm. beneen bi ci des yónent bi mooy laajte Mansour Fall. Mhm. moo lay laajte. moo lay laajte. laajte ana Mansour lu tax ñëwul tey. yónent bi di ma laajte. waaw oustaz loolu nu mën nekkee. xam nga boo gisee ñu bëgg benn tiijaan boo amul ngant. Uh-huh. bu rate hadratul juma ci mbalaan ma uh-huh. bu rate wasifa ci mbalaan mi uh-huh. xam nga lu tax lu tax chaque jour booy ñëw ci mbalaan mi di wasifa bis boo absenté suñ demee ci juróom-ñaari jawaratul kamal yenent bi ñëw ànd ak xulafaawul arbaa fekk Cheikh Tidiane mu toog day laaj Cheikh Tidiane ana Mansour Fall lu tax tey ñëwul mu xàmmee ma ràññi ma ba laajte ma ma laajte surtout allahu akbar su la laajtee ñetti yoon yoo xam ne amul ngànt te ñëwoo dootu la laajte

دوخ لون ناندو طريقه بيتخ استغفر الله نغ دك تيمير يون بسم الله خم استغفر الله موي لن يالا بالما بالما بالما بالما بالما واو يالا نيلا بالنا لا تيمير استغفر الله غا سيد ويتش غا جولي سي سوبم بي موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سن منصور نينا بو يالا يمون تي اندان لا ها ستروندو وملائكته يصلون على النبي كسه بخول سخ ديغليول بخول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه نيوار كاتيا فيك نيوار كاتيا فيك سو يمون فوف رك كسه ان الله وملائكته يصلون على النبي كسه فا يمون نيوار فا فيك ني جولي تي يونتي بي جولي تي يونتي بي تيمير يونتي ci salaatu bi gën ci salaatu yi muy salaatul faatih ci salaatu bi gën ci salaatu yi muy salaatul faatih ëpp doole ci salaatu yi muy salaatul faatih yëgoo salaatu boo zikkar mi ngi ci biir salaatul faatih mais oustaz euh, salaatu annabi ni mu toll yëpp nga jël benn ni moo gën yëpp laa waaw soo ko dugalee mi ngi ci biir salaatul faatih yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp benn salaatul faatih day jëlaat yëpp dugalaat ci biir yëpp ci biir

xeet bu nekk. waaw nit ku nekk ci biir xeet ba. Oh. am téeméeri junniy bopp. am téeméeri junniy bopp. bopp bopp bu nekk am téeméeri junniy làmmiñ. waaw waaw. làmmiñ wu nekk di zikkar beneen salaatu bu bokkul ak benn salaatul fatiha wala beneen tur bu bokkul ak salaatul fatiha mu zikkar ko téeméeri junniy at. téeméeri junni ak at bis bu nekk mu sikkar ko téeméeri junni yoon ba def ci téeméeri junni at benn peru salaatul faatixi moo ko ëpp doole benn peru salaatul faatixi moo ko ëpp doole oustaz kon salaatul faatixa est-ce que lan la affaire am dañ ko tëj maanaam salaatul faatixi dañ ko maanaam mbiram salaatul faatixi àdduna moo ko adduna attanul salaatul fatih. loolu ma koy a comprendre adduna attanul salaatul fatih. déedéet mbiram àllaaxira rek. Ah. mbiram xam nga yow li nga fi nekk yëpp. di jaamu yàlla Mansour. ak ñi mel ni yow. Mm-hmm. ak man dugg aljana rek mooy seen mbir. waaw julli yeeg ci maqa man bokk man Pape Makhtar foofu laa toll. ci maqaam man li may ñaan ak di ko tiit mooy bàkkaar bu ma am yàlla na ma ko yàlla. jéggal balaa may faatu. su ma yàlla na ma yàlla tabal aljanna ci yërmande man loolu rek mooy sam problème. waaw awma benen problème ci aduna bi. loolu man lima bëgg dal moy na ma yàlla jéggal ëllëg yowal qiyam tabal ma aljanna bila hisab wala iqab ah yo loolu loolu mom yaa ngi ñëpp ko bok déet xeyna na am na ñoo xamni ne dañuy jaamoo yàlla ci benen cadre man àgguma ci niveau boobu. àgguma fa mais fima ma àgg wax. fuma nek man chaque jour damay titi ci samay bàkkaar di jéggalu yàlla di ñaan yàlla mu yërëm ma atte ma ci yërmandeem ëllëg yowmal xiyaam baal ma bañ ma topp daara bañ maa xoolal daara li ma julleeg li ma woor rek li ma jàng alquran ak li ma ko mooy yooyu yëpp bu mu ko xool na ni daal Pape Makhtar yow man atte naa la sama yërmande aljana nga ngoog demal dugg seetuma la xoolaluma la dara oh. loolu ñaan yàlla loolu laa bëgg te bari naa ci ay moroom yu ko bëgg maag kon xam nga nit dundam te man suma dund tey bu ma dundoon ñaari téeméeri at man loolu rek laa bëgg fi ma toll nii. loolu rek nga bëgg loo rek laa bëgg parce que ci foofu laa yem ci daraja jooju laa toll. Mhm. am na nag ñu ko dépassé. ñoo xam jaamuwuñu yàlla pour àjjana jaamuwuñu yàlla pour safara dañuy jaamu yàlla pour yàlla yooyu man àggaguma ca wax dëgg. Ah. sama yëg-yëg àggagu ca. ña ci seen àgg nangul naa leen ko waaye man fii laa toll. te loolu ma may def noonu su ma dundoon ñaar téeméer at nekk ci loolu safara rek laa ragal aljana rek laa bëgg mhm. ñu ni benn peru salaatul fatixi bi ala marratan minha min annaari fidyatun wa mawtun ala al islaami fi zaka yursamu ñu ni ma ba maxtaar ma ni la bayk ñu ni ma li nga bëgg soo jàngee benn peru salaatul fatixi te fas ni lii waxu yàlla la jàpp sa xol bi bu wér ni mooy salaatu bi gën ci salaatu yi inchaa rabbul izzati di nga am loolu ci benn peru salaatul faatiha ci benn peru salaatul faatiha mhm. te te benn per boobu defal loolu waa ji du du ku jàpp tarixa bi moo ko jagoo de ki gëm ni rek mooy salaatu bi gën ci salaatu bi salaatu yi ki ko gëm gëm ni ki bokk ci tarixa bi non non non ala marratin min amina naari fidyatun wa mawtun ala l islami fi daka yursamu kooku du pour waa tarixa concerné wul waa tarixa bi déedéet ñëpp la ñëpp ngi ci biir yow gëmal salaatul faatiha rek moo gën moo gën ci salaatu yi nangu ko bu la ko kenn xañ nangu ko bu wér bu la ko kenn xañ muy benn ñaareel bi nangul nit lii du wax du waxi mbindeef mhm. nangul loolu soo ko nangoo rek acca dugg nga ci biir garanti boobu nga jàng ko fekk jullit nga mhm. kon yaa ngi julli toujours ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax yow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 jox ko rek pare ci. yàlla rek lii boo ci lii la tiijaan yi sax lii nag boo ci saxee pour nga wax wax bu rëy foog foog doo am làmmiñ bi mënul nekk mënul nekk beneen bi ci des tamit Mansour tiijaan boo gis dañ lay yar ci yonent bi ak yàlla. dañ lay yar. ci yonent bi ak yàlla. dañ lay yar ci yonent bi ak yàlla. yàlla dañ lay wax xamal ni la kenn nekk fi ku dul yàlla. tey la àjjuma. Tidiane yëpp daañ def xadratul juma bu ñu amul ngant Cheikh Tidiane kenn du ko fa tudd. bi ak ni muy kenn du fa tudd Cheikh Tidiane ak ni muy yaatoo ak ni muy diire ma du fa tudd Cheikh Tidiane. doo ko fa dégg doo Fatiha.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 premier cadeau bi ñuy joxe après ñun duñ ko jox Cheikh Tidiane. premier cadeau bi buñ paree. mais oustaz buñ paree xadara buñ paree wasifa buñ paree wird premier cadeau bi ñuy njëkk joxe duñ ko teg ci loxo Cheikh Tidiane. loxo kan lañ koy teg yonent bi. hadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulallah. jazallahu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xayran kama huwa ahluhu da koy delloowaat lépp. delloo yonent bi lépp ba pare ba yonent bi ñëpp ñu ni ko xam nañ nag am na ku nekk suñu buntu sa digganteeg suñu digganteeg yow ñu ni jajallahu anna cheikhana ahmed tijani sharif radiallahu taala anhu xayran kama waalo te te te te ñu xam ni cheikh am nañu dox suñu digganteeg cheikh muy wasaa'il yi di suñu sëriñ ñu ni jasallahu anna jamia al sëriñ si dox suñu diggante cheikh ñu sant wuy jur yi ñaanal leen ñu nu jur ci tariqa bi wal walidina xayra allahumma arda anna wa anhum ridan la suxta baadahu abada yàlla ñun ak suñu wuy jur yi ak sëriñ si nga xam ne ñoo dox suñu diggante cheikhu Tijaan ak cheikhu Tijaan ci boppam ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga ñu boole ngërëm loo xam ne soo ñu ko gërëmee dootuñu mere dootoo ñu mere. ndax joxal lépp ndax wa ridwaanun min allahi اكبروا تي موي طريقه تيجان ودا افاي بي دافا دافا دافا دافا سامبل موتاخ بو تي بوكي اها دو داف اي كونيري ها جامي او غران جامي دو واخ لو خامني بوكو واخي لوخو ديم جيمي دو تيجان ولا راخنا ساك تيجان ولا راخنا ساك تيجان تيجان تيجان دو تگ تيجان دو فيتش تيجان دو يوخو تيجان دو سار تيجان نصحه أصحابي أصحابك نصحاب يدان دون دا لتالي ببتيج عند دون حاج منصور أصحابك أصحابي سي تالي بي أك سمي تالي بي بنا لين تالي بي كان يلين تبي أك تالي بي شيخ أم لسمان سنباب با سنباب وكار وخنا قد أم الكرامو وإصحاب الرسول وأرباب الخبول وأهل الضعف والنوني أستاذ محمد جاني وقتان أه ma am lu ma ko wax ci xëy na yenn yi ñuy teg ci kaw yàlla wala yonent bi. koo ko doon waxtaanee. Mamadou Dia Diaghi. Dia Mamadou. non Mansour. Mhm. Euh, poser le débat bi nga wax ko laajte Oustaz Pape Makhtar lan moo tax. Uh-huh. parce que foo ko déggee rek. nekkul njabootu Seydi Cheikh Ahmed. non mënul nekk mënul nekk. mënul nekk parce que nin leen di yaree la ak fin leen di teg dañ ko lay yaree ak fin lay teg la gis nga nit ki. soo ko yaree sa bopp yow lay xam soo ko yaree ci yonent bi yonent bi lay xam soo ko yaree ci yàlla yàlla lay xam point jeex na amatul commentaire Mansour ay ca jërëjëf fajati imam oustaz alhaaji Pam Maxtaar yàlla nañu yàlla def dëgg-dëgg taaliba Seydi Cheikh Ahmed Tijani Cherif il Fatimi oustaz foofu la ñuy jaare nag ñëw ci weer wi di weeru rajab bëri na yuñ ciy wax bëri na taxawaay bu mu am bëri na ay ngëneel yu si am bëri na am na lu ci xew oustaz lan mooy rajab ci boppam ak weer wi ban dayo la am doy na dayo weer wi rek xam nga yàlla moom lépp yàlla moom moom lépp lépp waaw mhm. moom la ñuy wax yàlla mooy rabbil aalamiina mhm. waaw moom la waaw li mu bind yëpp nag mu téye ci weeru rajab ni weer wi sama weer la. Ah, kon ci weer yi dafa am weer wu mu jël si ko waat boppam. rajab la jël ni rajab sama weer la. Mm-hmm. kon moom weer wi weeru yàlla la. yàlla la. Mm-hmm. ni suma weer la. weeram la mu neel benn. ci la invité xaritam soppeem léppam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ci weer wii la. lii li ko guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar. Mhm. isra wal mi'raj. te. fekk boobu sang bi tedd sang bi sonn invitation boobu. waaw. invitation boobu dafa mel ni beneen affaire la. waaw fekk boobu sang bi sonn def na màkk woote ba sonn gars yi gëmu na tuuti gëm ko mu dem taayif taayif yeesu waa màkk. mu dellu si bopp bi tëju. Mhm. muy siñeenteeg waa Màkka yi ay pacte mhm. gaa yi bind Seydina Aliin bind Muhammadu Rasulullahi ñu koy eh, looloo tax ñuy signé affaire bi yow tamit Aliin bu mu gëmoon ni Rasulullahi la duñ nekk fii di weranteeg moom yow it. te te dindi ko Seydina Aliin ni ko du dindi yonent bi woo ko mu ñëw ñu ko Aliin dindi ko. ma ko du ma ko dindi parce que man gëm naa rasulullah ñoom ñoo ko gëmul man ma bind rasulullah gëm ko ba pare di dindi rasulullah. xalaatuma ko xalaatuma ko def yow tamit sang ko def. te te te te. Mhm. yonent bi ci ak yéeféer yi. Mhm. mu woo kenn ci yéeféer yi. Mhm. ko fan la Muhammadu rasulullah bi toll. ndax moom. yonent bi man du ma wax mënul bind mm-hmm. du ma wax mënul liir mm-hmm. man ñemewuma wax loolu uh-huh. ñun ci téere yi bind nañ ko mm-hmm. wax nañ tamit salaatu boo xam ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi yi ak ummi yi mooy illettré uh-huh. waaye man duma man duma ko wax ndax kéw ni mënul bind mënul jàng te muy jàngal gaa yi alxuraan ji na na xel yi na xel yi daw. loolu na yem ci charia. dégg nga na ci charia. waaw mais comme yàlla toujours day défendre day défendre yonent bi di defendre alxuraan pour balaa gaa yi am proxndal bu nu jàll moo tax mu ko doon wax ni wala taquttuhu bi yaminika izan lartaabal mubtiloona mu ni bul bind alxuraan bu ci tomb bul maas bul jege soo tomb yeeg maas sax ginnaawam la. ginnaawam la wala taqutuhu bi yaminika izan lartaabal mubtiluuna sa ndeyjoor bi bu ci jël mukk bindukaay jege téere bi wala ngay jéem a bind soo bindee ñu gis ni yaa bind rek dañuy sikk dañuy wax ni alquran yaa ko créé yaa ko bind danoon may danoon danoon yi ñu am dut waaw fu ñu jaar waaw fu ñu jaar kii ni ñu ko waajalee yéeme na xam nga gars yi eh, dem ba njaay tam sax nga dégg Sénégal yi naan non vaccin yi ñu vacciné kilifa yi ak yi ñu vacciné <laughs> bokkul bokkul de. <laughs> gaa nga dégg loolu foo jaar ñu ut jaar. waaw non. parce que am na ne gars yi ne yi ñu vacciné président ak yi ñu vacciné. yëpp benn la <laughs> benn la benn kees gi. moo tax yi yàlla ni ko bul bindi. ni ko bind bind. su ko bindee rek gars sikk. Mhm. gis nga ki gën a dof ci kaw suuf. Mhm. mooy ki yaakaar ni muus na wala ki jàng. gis nga Mansour yow tey. Mhm. soo demoon ci benn sëriñ mu lay tarbiye. Mhm. pour nga am fatxu xam yàlla. yow nga ànd ak keneen koo xam ni musul jàng musul dal. musul xel mi yewwul. kooku mën na am fatxu ba tarbiye la nga am fatxu te doo am fatxu. lu tax Oustaz. ah lu na. da xalaat te kee du xalaat. te day appliqué rek. yow toujours yaa ngi appliqué texte charia yi yaa ngi xool yaa ngi nangam nangam kee moom yooyu du ko ci fekk moom lu ko sëriñ bi wax rek day def. Mm-hmm. moo tax jàng yenn saa mu sonal borom. day borom. yenn mu xañ la yiw. yenn saa yi mu xañ la yiw. yenn mag màggat ñëw taxaw. ñu ne sama doom dama bëggoon lu ma jënd suukar ak warga. weex taal ak bee jaaw ngay xalaat kii mag mu toll na moom. dóorkat yi. waaw ba mu ba mu nekkee jeune lu mu doon def mu nekk fi màggat di yër di yalwaan loolu ngay xalaat. fekk doo dem. yonentu sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ñu ko fan mu dindi ko. ko dindee mu ni Seydina Alioune fii kaw këyit la rek. Mhm. këyit gi buñ ko tafee ci kaaba gi mën naa am fi yàgg. taw bi yàq ko wala max lekk ko wala ngelaw yóbbu ko waaye Muhammadu Rasulullaay yàlla bind na ko foo xam ne loxo àggu fa ca kaw mu effacé yonent nekk ci xat-xat boobu nag yàlla rañaane ko loolu indi isra wal mi'raj mu dem ci gàttal mu jox ko julli juróom defal ko ko juróom fukk Mansour yonent bi ak Moussa bam mu mhm. ni coono bi la wàññi Waye ku julli juróomi julli ma fay fukki ah, bi bari na de ah la lay fay la bi passé chaque jour julli 50 prières yi ko julli calculer yor yek tout ça va 8, heures goudi chaque jour que je fais. kii moom weer wi nag muy weeru julli mhm. weer wi am beneen ngëneel xam nga danga nga jàngoon ci alquran Mansour man jaa abil xasanati fa lahu ashru amthaliha mhm. soo defee benn ñu fay la fukk weer wi nag du benn fukk du benn fukk déedéet weer wi benn juróom-ñaar fukk la benn soixante-dix la rajab ah. benn fukk de bii benn juróom-ñaar fukk la. nga ñu naan. maa maa la ko wax man Pape Makhtar. au ko que fu au lieu soixante dix la. benn yiw boo def ñu fay la soixante dix. bii dafa am lu muy waajal. gis nga bu weer wa topp ñu naan barax waaw benn benn. nekkaatul fukk de. nekkaatul fukk. déedéet. soixante dix day continuer. déedéet donc dañ koy benn juróom-ñaari téeméer lay nekk ci baraxlu mu gën a gën a fooraat encore. encore multiplication bi gën a bari. di bari lu muy xaalal de ca kanam yal nañ ci yàlla yóbbu tuñ fekkee jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. koor bu koor muy junni. bi la. voilà. dafa am kuy dafa am gan guy waaj a ñëw. gan googu nag. la la rajab di préparé la. benn boo def léegi mu def ko 70. benn boo def 70 la man jaa bil xasanati falahu ashra amsaaliha waaye léegi boo defee benn dañ koy multiplier def ko 70. muy beneen bonus. waaw. Mhm. muy weer woo xam ni weeru julli la. bëgg nañu ko ci julli. moo tax suñu maam alxaaji Ousmane Kayre yàlla na yàlla yokk leeram. amiin yaa rabbal aalamiin dañ ci organiser salaatu tasbih. ca ñetti mbaar. wallaay ndeysaan. moom nag mu baax. mu yiw bu masaan jot mu organiser salaatu tasbix julli ñëpp ñëw ànd ak moom mhm. yal na yàlla yërëm kon weer weeru julli la mhm. moo tax bëgg nañu ku ci bare looy naafi la mhm. bëgg ku ci bare looy woor waaw ci moom ci ci weer wi ci weer wi dañ bëgg ku ci bare looy weer kon weer wi dafa mel ni ngëneel yi mu am bari lii ci laxasu bari na eh, xewwali tamit bari na dañ koy multiplier que multiplier waat parce que doyoon na rek ci ngëneelu weer yi ñu benn boo def nañ ko multiplier par soixante dix. waaw ah. léegi yi dañ koy multiplier. Mhm. julli yi ñu multiplier ko. Mhm. zikar yi ngay zikar ñu multiplier ko. Mhm. mbooleem jaamu yàlla yi ngay def dañ koy multiplier ndax dayu weer wi. ak màggaayu weer weer wi. يرنتي بالنانا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نين إلي يوم الخيام كودك دنجي خيف مر دنجي خيف مر بوم ديس نيدان وار رجب بوم ديس نيدان وار رجب رجب بو رجب نيو نيو وار تي بن فان نياري فان ماي فاتلي كو سيني وي جورو يالا يالا يوكو ليرم الحاج مورفال دان وار رجب woor Chaabaan woor Ramadan wallahi moo tax mag ñoo ñu bëgg yàlla ñetti weer yi la daan boole rajab woor ko mhm. woor Chaabaan woor Ramadan mhm. lépp mu def ko taabudan lillahi jaamoo ko yàlla mhm. moom tamit beneen bonus la eh, yow tamit kooku li ñëpp xaj nañ ci waaw mag ñoo xam ne ni doon jaamoo yàlla su leen ko yàlla fay ku xamoon seen tur sax yàlla mën na laa rus ku xamul seen tur waaw ah, mas na mën na dafa am benn mag yàlla bu ko cat jiitu mhm. mu génne àdduna mhm. bi mu génnee àdduna Mansour am beneen mag bu ko gis bu mu ko gisee ndeysaan mu mu mu ci gént ci gént nee na mu wan ko ay kër yu bare ni ko bi ma ñëwee fii léegi am naa fi ñeen fukki kër ak nangam am naa fi ñeen fukki kër ak nangam ak nangam waxal sama njaboot waxal xale yi ñu góorgóorlu rek mhm. dégg nga waxal xale yi ñu góorgóorlu rek. Mhm. ah. Mhm. kon mag ñi seen liggéey ah yàllaa yàllaa dogal ñuy liggéey liggéey boo xam ni ëpp na leen ñoom. ñuy liggéey liggéey boo xam ne ëpp na leen ñoom. ëpp na leen Mansour ëpp na leen ëpp na leen su ko defee muy weer woo xam ne weeru jaamu yàlla la mooy rajab moo tax yeneen bi nee na benn fan ku ko wóor ci weeru rajab mhm. benn fan. pour dara taxul nga woor ko gëm yàlla ak jaamu yàlla ëllëg yowmal qiyaam di nga dugg aljanna Mansour ma nettali la benn xisa dafa am benn jigéen mhm. bu weer wi masaan teeru mhm. dafa am benn tuseem comme lu mel ni perkaal mhm. moom lay sol di ko jaamoo yàlla ci naafila ak di woor bis bu nekk nag dana jàng fukki qul huwallaahu ahad ak benn. bis bu nekk bis bu nekk. yàlla dogal bi mu wóoluwul yaramam mu woo doomam dénk ko ni ko su ma fi jógee sama yére bi ma doon sol di ko jaamoo yàlla ci rajab na ngeen ma ko sàngee. na ngeen ma ko sàngee. sàngee bi mu faatoo doom ji yére bi xawa a wayaf daal nekk perkaal tisi bi daal mu xeeb ko. Mhm, mu xeeb ko mu dem jëndi beneen. bu bu gën a riche boobu sànge ko wuyu juróom. Uh-huh. dem jënc ko bi mu ko jëncee guddi rek mu gis wuyu juróom tiim ko di wax ak moom ni ko diw man gërëmuma la. gërëmuma la mu ni ko lu tax mu ni ko lu tax sama ndénkaan bi ma la dénkoon wax ni la sànge ma ko lu tax sànge woo ma ko nga sànge ma leneen. doom ji tiit ni bëri di yow xëy jël gasukaay dem ca bàmmeel ba pour gas ko yóbbaale li yaayam waxoon na ko ko sànge mu sànge ko ko mu gas bàmmeel ba ba romb fi ñu defoon yaayam te gisu ko dabu ko mu tiit jaaxle di gas xool ba yàgg mu dégg benn baat baat baa ngi koy woo muy dégg baat bi waaye gisu ko mu doon mhm. ko xanaa xamoo woorkatu weeru rajab bi ak ñiy jaamu yàlla ci weeru rajab suñ leen dugalee ci seen bàmmeel kenn du leen fa bàyyi ñuy wéet suñ leen fa dugalee rek ñu ñëw jëli si leen. allahu akbar. yóbbu leen fan ci seen borom. oustaz kon jaamu yàlla ci weeru rajab. dafa am doole dafa am doole moo tax toujours damay wax comme ni sama mbokk yi sant Cissé ak Lo ak Jaxate ak Samb da ngay dégg ko naan man koor gu mag gi rek. ëpp naa wax. déedéet même su fekkee ni yow koor gu mag gi rek la bu ko wax parce que ëllëg yomal qiyaam naafile yi dana fàtt farata yi. naafile yi dana fàtt farata yi Mansour farata dana fàtt farata yi te xamoo Mansour ni nit du farata nit du ci amee galon farata nit du ci amee daraja ay gratu ci naafile nit di amee daraja aha da ba am daraja mhm. soo gisee boo gisee tariqa tijaan bari waliyu bari waliyu xam nga lu tax lu tax mais eh, li ñu saxoo astaghfirullah salaatul fatiha laa ilaaha illallaah chaque jour nga saxoo ko. Mhm. te bokkul woon ci sharia bi. Mhm. nit lu la warul woon nga warloo ko. Mhm. mu tegu sa kaw. te fa soo yéene mu wàcc la ba ba keroog ngay dee. moo tax tariqa tijaan bëri wala yu eh, Cheikh Cheikh Mouhamadul Mansour. oustaz euh, waajur woowu nga wax léegi. nga xam ni moom diiran weeru weeru rajab bi. daañu si bëri lum ciy jaamu yàlla di si def ay nawafil waaw oustaz. wax nga sànq ci mag ñi. kon tey mag mu mel ni maam Ousmane Kayre. nga xamni waxuma sax jaamu yalla waye di dinaan favoriser ubbi buntu ba nga xamni ay jooni nit nañ profité pour jaamu jaamuwaale yàlla mag momu nak kon yàlla nuko yàlla fayal amin ya rabbal alamin te yokal ñu leeram amin ya rabbal alamin may wax ni mag ñi duñu xamone buntu rawukay dañu xamone buntu rawukay xam nga salatu tasbih Mansour amna ño xamni ñu ko xamé ci mam alhaji usman Kayre man dafa laa ko mujjee jullee waaw am na fa lañ ko xamé ci moom mhm. ci moom am na ay borom xam-xam yoo xam ni ñoom xamuñu woon sax salaat tasbih xamuñu ko woon. ndeysaan mais mag la moo ko fii ci mag ñi ko njëkk a génne wax ko ñu koy julli ci la bokk te julli goo xam ne yonent bi ko dénkaane jox ko baayam ni ko soo ko mënee def ko bis bu nekk soo ko mënul par semaine boo ko mënul par weer boo ko mënul par ñetti weer soo ko mënul nga def ko benn yoon par at soo ko mënul nga fexe ba def ko benn yoon ci su dundu baay. li la maam El Hadj Ousmane Kayre fàggul moo tax mag ñooñu seen liggéey dootul fay bu mukk Hadj Mansour. mukk mukk loolu la moo tax bu bis bi masaan jot ku mu am ñu mu am ñëpp dajaloo ci ñetti mbaar ñu julli ko def julli gi tey eh, corona bi ñëw na événement bi du mën a am waaye moom lam ca doon am da ko ciy am ba léegi looloo tax def lu baax baax. événement bi amul. déedéet du am. ndax li xew ci jamono wala buy am du amé namu daan amé ñu baas ci mbedd mi njaboot gi mën nañ ko def ci jàkk ji ndànk mën nañ ko def ci biir këram njaboot yi nekk bitim réew bis ba kenn ku nekk mën nañ ko def foofu def sa salaatu tasbix bi def yooyu ñu mel ni oustaz ahmed daam kayre def ko foofu ci bitim réew mbooloo ma du fa daje waaye moom maam alaaji ousmane kayre lam ca daan am ci tiyaaba lu tol noonu la ciy sédd wala lu ko ëpp ndax man sànn sunnatan xasanatan képp ku rëdd yoon wu rafet. Mhm. yonentu nee na ku def nga am ku ca deful nga am parce que yaay rëdd lu rafet. te ku ca def nga am. ku ca deful nga am. yow rëdd nga lu rafet bàyyi fi jeex na. corona bi yàq na lu bari oustaz. waaw te te te daf ko daan dénkaane ndeysaan dafa daan wax njabootam sama gannaaw jàkk ji na ngeen ko fonk fonk daara ji fonk bisu àllarba bi fonk gàmm gi ndax salaatu tasbih wala daan wax njabootam sama gannaaw ah? na ngeen fonk jàkk ji mhm. fonk daara ji mhm. fonk àllarba ndax àllarba la daan dajal dajale njabootam ñaanal Sénégal ñaanal kilifa yëpp ba tey maam Cheikh Omar mhm. moom la daan def nangeen ko fonk àllarba ji fonk itam bisu gàmm gi loolu la daan dénkaane parce que xam na ne loolu moo fi des leneen desu fi daaraa fi des jàkka toog ñaan yàlla def salaat tasbix julli yooyoo fi am de loolu tax loolu la daan dénkaane xaj Mansour jërëjëf oustaz su ma bañu woon Mouhamed Lamine Niang bu ah. Tiwaawan bu Baye xalifa Niang summi ma naa wax ni man de yaa yaasin dong laa cay namm ak berdeem ya macha allah yal na yàlla yokk ko wér dolli ko taw feex oustaz kon yooyu yëpp ay ngëneel la ah ah. yoo nga xam ni mi ngi ci biir weer wi ànd ak ay xeewalam ak i teraangam wax naa ko sànq doyoon na rek nga xam ne li nga wax léegi nga xam ne ku ci woo ñiy dekki ëllëg yowmal xiyaamate duñu dekki waalee bokk na si ñi woor weer wi bokk na ci euh, ful gi nga xam ne dinañ ko ful li si nit ñi am si yiw mhm. bokk na ci yiw bi nga xam ni euh, bis bi nga xam ne ci la yàlla subhanahu wa taala recevoir woon euh, so suñu so soppeem ba mhm. di suñu sang mhm. di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu kon yooyu yëpp nekk ci ay ngëneel kon weer wi nekkul weer woo nga xam ni weer wu ndaw la. nekkul weer woo nga xam ne weer wu tuuti la. nekkul weer wu yoo xam ne nit ki war naa yem rek ca lam doon jaamoo yàlla. déedéet daf ko war a yokk. daf ko war ko. dolli ko bu baax. ndax ni ko yàlla dollee ci xéewal. mu dollee ko ci. loolu yëpp ay ngëneel la fa tabarakallahu ci weer wi nga xam ni weer la wa nga xam ni uh, Oustaz Pape Makhtar wax na ko uh, te wax na ko léegi muy waajal li nga xam ni moo nekk suñu kanam. Euh, fa tabaarakallahu te benn bu si nekk nekk yiw ak xéewal oustaz ginnaaw jaamu yàlla yooyu yëpp nga xam ne nit ki war na góor góor di ko ci bareel war na góor góorgóorlu di si jéggalu yàlla lu baree baree bari rawatina fi nga njëkke muy julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que am na yeneen digle yoo xam mën nañ ko cee def ay ñaan yu yuñ ko yuñ ko jagleel yu mel noonu mhm. wala dañuy continuer rek naa surtout naafile yi ñu yokk ko واو حد منصور جس نقول جلت جلت سا سونك دفا وار دي فوغلنتي بروم ني فوغلنتي صح فوغل موي باي خيل يالا سا سوني حسين لو دغلول خول يونتي بن متول منصور يالا جاكارلو موم نيكو وعبد ربك حتى ياتيك اليقين ah ba tekki sa laxasaay de. takkul rek jaamu yàlla ba keroog dee di ñëw. parce que xam nga àdduna amul noflaay. amul noflaay déedéet yonent bi dafa mës a laaj Jibril ni ko ndax na ree mu ni ko danaa ree. mu ni ko koy ree mu ni ko nit. mu ni nit mu ni ko looy ree ci nit mu ni nit dafa bëgg lu amul ci àdduna bi. nit dafa bëgg lu amul ci àdduna àdduna bi mu ni ko mooy lan mu ni ko mooy noflaay mu ni mhm. baatu ar raxatu bi ar raxatu bii firi noflaay turu baat bi moo ñëw waaye noflaay amul fii noflaay mag ñuy xaar aljana turu baat bi moo ñëw kese moo ñëw imaam Seyba nuyu naa la ziar la bu baax imaam Seybatu maa koy nuyu bu baax mhm. ku jaale wuy juram di ñaan yàlla yàlla yàlla xare ko aljana amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa kon baat bi rek mo ñëw ci aduna mo ñëw la rahata fi dunya wala nashata min an-nas bokku na ci déclaration yi Mawlaay serigne Abdul Aziz Al Amin mujj wax la rahata fi dunya wala nashata min an-nas ndaysan moy bi ko jóob ci jëlele ci xawma ma Maroc xaw fan pour mu dalu ndaysan ko dama bëggon nga noppalu fi wër mu ko ëpp na def sama dund noppalu amu ci ki la waxoon ne ah la raxata fi dunia wala najaata min annaasi ñaar ku ko bëgg yaa tooñ sa bopp noppalu ci àdduna ak mucc ci nit ñi ñaar yi ku ko bëgg yaan yaa tooñ sa bopp yàlla ma yàlla musal ci nit ñi ah mhm. boo koy yaa ngi ñaanal sa bopp musiba ñaar rek ngay ñaan képp ku naan na ma yàlla musal ci nit ñi ñaan rek ñaar rek ngay ñaanal sa bopp muy ban yàlla bu ma tekki wala yàlla naa gaaw a dee yàlla bu ma tekki. wala yàlla naa gaaw a dee. ñooñu rek la nit ñi bàyyi. mooy soo tekkiwul kenn du la wax dara Mansour. Hmm. soo tekkiwul dara dara dara dara kenn du la wax dara dara dara dara soo deewee tëdd <laughs> gars fàtte nañ la ñi la doon critiquer boo deewee ñoo naan moo baax ñi la doon critiquer laa wax di la teg baat bis bu waa deewee ñooy ñëw ni ak baaxoon.

yow fi nga jublu rek jublu fa li nga war a def def ko mooy laa raaxata fi dunya fi dunya wala najaata min an naas nit ñi kenn mënul mucc ci moom léegi nag weer wi bu ci wut noflaay jaamul yàlla parce que noflaay mi ngi lay xaar te li ngay noppalu mooy ëpp li ngay sonn li ngay noppalu moo ëpp li ngay sonn <laughs> Mansour bàmmeel yi moom ku fa dem tëdd nekk ci xéewal oh yaa ngi ci noflaay yëgatoo dara. soo gars yi bu leen nee pëkk pëkk pëkk ñu ni bëreet ñu ni lu xew ñu leen yomal xiyaam ñu xar bàmmeel yi bàmmeel yi toj ñu xool ful bi yaa li ñu njëkk wax man ba'athana min marxadina loolu gëdd la eh kan moo yee ci suñu nelaw yu neex yi ñu nekkoon kuy nelaw nelaw yu neex yaa ngay noppalu نخول بنتي نخول نتني ايه هذا ما وعد الرحمن لي لنيو يالا دون دغل بس بنيونا وصدق المرسلون مصطفى صلى الله عليه وسلم اكي بوكم دي اي يوننت لن دون وخ يكسينا وصدق المرسلون بولكو فيري يوننتي وخ نين دك كو خامني لوم وخ دك لا سو وخي باتو صدق دوكو فيري دكل نوكي فيري وصدق يكسينا وصدق المرسلون لا يوننتي دون وخ يكسينا loolu la sa maam. kon affaire bi loo loo firiwu ko. loolu la alaaji Malick sa maam sunu maam boroom xam-xam bu bari bi doon wax naan yonent bi sadaxta ala maa xulta fii awdi diininaa. Mhm. sadaxta yegg si nañ. ala maa xulta la nga doon wax fii awdi naa ci dellug suñu diine xariban di tumuranke kama badaa comme nu mu commencé woon xariban di tumuranke xam nga ñaanu wasifa. Maodo. Mhm. Alaaji Malick dafa garaaw. moom Seydi Hadj Malick nañ ko yàlla fayal xool amiin yaa rabbal alamin ñaan wasifa gi foofu mi ngi ñaan waaye mi ngi lay fàttali xadis yonent bi mu wax bada a diinu xariba wa sa yaudu xariba kama bada a xariba fa tuuba lil xurabaay gaa yi ne wa sadaqa al mursaluuna la yonent yi doon wax yegg si ne mi ngi nii li ñu waxoon ni in kaana ilaa sayhatan waahidatan dañu waxoon ni affaire bi dañ jëkk yàgg nag mu nekk benn xaaj ci yomal xiyaam ñëw comme loolu mi ngi lay xaar nag xaaral foofu noflaay weer wi bari loo ciy ñaan yàlla mhm. bari loo ci zikkar mhm. bari loo ci naafila mhm. bari loo ci saraxe bari loo ci jàngal quran bari loo ci jokk bokk bari loo ci rëccu te rëccu mooy tuub say bàkkaar yi nga doon def yii mooy weeru rajab pour lan nga préparé ndax dañuy wax ne rajab xam nga lu muy defar. lu muy defar dafa war a fexe ba nit ki xeex ak bakkanam rajab su xeexee bakkanam bakkan bi dee ci rajab shaabaan ñëw di baraxlu xol bi mën ëmb leer. Mhm. ramadaan ñëw roo gi mën communiquer ak yàlla mu jeex tàkk te loolu rek la nit bëgg nag. te loolu rek la nit bëgg bëgg xaj Mansour kon weer la woo xam ne weeru jaamu yàlla la xaj Mansour weeru góorgóorlu la weeru taxaw la weeru farlu la xaj Mansour jërëjëf fajal ci imaam oustaz alxaj ba maxtaar weeru fuglu la weeru gën a bàyyi xel sa borom la waaye weeru gën a dolli jaamu yàlla la waaye weeru préparé la pour li nga xam ni mooy échéance bi nekk sa sa kanam nga fexe ba compétition ku dem compétition da ngay da ngay da ngay entraîner préparer compétition bi ngir su ñëwee nga mën ko jox li mu laaj ñu jaare foofu nuyu Mouhamadou Lamine Niang euh, nuyu ko ziar ko bu baax a baax a baax ziarale mboolem ñi nga xam ni ñoo ñuy ànd ak ñun ñu yóbbante nuyoo ci Baye Khalifa soxna Kiné Haji Baye Ndiambe waaye ak commandant nuyu leen ziar leen bu baax a baax suñu Baye imam euh, Chayba ñoo ngi moom it ñoo ngi koy nuyu di ko ziara bu baax a baax. Euh, xaaju Ousseynou Ly bu Al Amin moom it ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax a baax ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysir ak mboolem ñi nga xam ni Seydou moom ñu ngi koy nuyu Seydou Silla moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziara bu baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne ñi nga ànd ñun ci seen émission Miftahul Huda Haji Daouda Ndiaye ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax xaaju Aline Badara moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziar Mohamed Silla nuyu nañ ko ziar ko bu baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne ñi nga ànd ñun saa su nekk si seen émission Miftahoul Houda euh, nuyu leen ziar leen bu baax a baax a baax Hadji Moussa moom it Hadji Moussa Sylla moom it ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax waaye Hadji Mouhamadou Moustapha Sylla bu Rimbax Sylla moom it nuyu ko ziar bu suñu bàyyi moor moom it ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax nuyu waale mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe Rimbax fa tabaarakallaa suñu soppe boobu soxna Ndey si la moom it nuyu ko ziar ko bu baax a baax Badiane Kumba nuyu nañ la la bu baax a baax oustaz Pape Makhtar oustaz ba tey li nga xam ni mooy julli. nga xam ne ci weer wii lañu ko lañu ko lañ ko wàccee woon. andi woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz jaamu yàlla yëpp yàlla daf ko yónnee Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa ban importance la julli am ak jaamu yàlla yi ban différence la julli ak yeneen jaamu yàlla yi. ba mu recevoir yonent bi ca kaw doo ko jox. waaw mooy caabi aljana. moom julli. waaw mooy caabi aljana. xoola mooy caabi ji nga xam ni mooy ubbi buntu aljana mooy benn. Mhm. moo lay jegeel sa borom. Mhm. xanaa xamoo nit sooy jàng alxuraan yàllaa ngi wax ak yow. sooy jàng alxuraan. yàllaa ngi wax ak yow. soo bëggee yàlla wax ak yow rek ubbil kaamil alxuraan bi toog di jàng yàllaa ngi wax ak yow. soo bëggee yow di wax ak yàlla jullil soo bëggee yow soo bee kaamil alquran di jàng alquran yàllaa ngi wax ak yow soo bëggee wax ak yàlla oustaz Moustapha mhm. bu rimbax saa yu ubbee kaamilu alquran mhm. di jàng yàllaa ngi wax ak moom mhm. loolu kuy jàng alquran te xam li alquran firi xam nga ko bis bu nekk nga wokk sa góomu bopp te kenn du la ko wokkal yaay xam ni aaya bii waxul ak kenn man Pape Makhtar si la lay waxal kenn la waxalul jukko ji maa ko yor mhm. mbom gii ci mën la nekk mhm. lii muy tere maa ko def mhm. chaque jour boo tiimee alquran gis affaire loolu mag seen njàngu alquran di yeex ndax aaya bu nu romb mu wax ak ñoom ñu tuub aaye bu nu romb mu mu mu mu mu dige àjjana ñu ñaan àjjana mhm. aaye bu nu romb mu dige safara ñu ñaan mucc ci safara booleeg di ko settantal kon sooy jàng alquran yàllaa ngi wax ak yow waaye Mansour suy julli nag yaa ngi wax yow yaa ngi wax yow ci sa bopp ak yàlla am nga audience direct ak sa borom kenn doxatul sa digganteek sa borom te te li jafe mooy audience. audience moom la gars yi bëgg di. audience la gars yi fu bëgg Oustaz. <laughs> bii nag moom saa yooy jàppee ba set taxaw jublu penku. Kaaba ga jàkkaarloo Kaaba ga ndax bëtu yàlla bi mu sëppoo àdduna bi yëpp neel mooy Kaaba gi nga jàkkaarloo Kaaba gi. Mhm. soo demee ca Kaaba ga am na sax ci bët bi fu ñu tuddee aynu rahmati. Mhm. bëti yërmande mu tiim ijiru Ismaila. Mhm. yàlla nañ fa yàlla yóbbu amin ya rabbal alamin amin waay yàlla nañ fa yàlla yóbbu amin ya rabbal alamin ci barke yonent bi sallallahu alayhi amin ya rabbal alamin maa ngi ñaanal yàlla de passage noonu ngeen koy waxe waaw Thierno Hamidou Yoro Bane moo ma fa yóbbu ba mu dugg ci biir xijuru Ismaïla boobu ndeysaan aynu rahmati yàlla yokk weer waay amin ya rabbal alamin ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk fanam seen war naa gaaw ubbiwaat nag yokk wéram dana ubbiwaat léegi war naa gaaw ubbiwaat nag incha allah ci kàttanu yàlla ndax ñun ñi war nañoo dem ñun ñëppay dem incha allah ak ñi ñuy déglu ñëpp ak yi mbax yi ñëppay dem incha allah incha allah soo nee allahu akbar di kabar sa kabaru armal mhm. audience bi ubbi na yaag sa borom mhm. dara doxatul ak sa diggante ak sa borom mhm. léegi xoola yàllaa ngi lay déglu

fayal télé bi julleel fi nga war a jullee mais def ko tamit ci heure bi xam nga boo déggee ñu bëgg nit ñi di julli ci waxtu Mansour mhm. waxtu julli bu jot dañuy ubbi buntu asamaan yi waxtu julli bu jot dañuy ubbi buntu asamaan yi mhm. pour julli yi yéeg bu tisbar nekkee 14 heures wala 13 heures et demi nga mhm. bàyyi ba 19 neuf heures di julli tisbaar ba ñu tëj tàkku tisbar tëj tàkkusaan mu des timis mais Mansour defoo dara yow it nga teg portable yi teg yëpp moom la la boroom laxdar yu nitu yàlla bu rëy boobu abdourahman di la wax ni ida atayta ila salaati fa farriq qalbaka min addunia wa ma fiha wastaxil bi muraqabati mawlaaka allati tusalli li wajhihi mu ni suy julli na nga fexe ba lépp luy àdduna na nga teqalikoog moom nga jublu ci yàlla sa borom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 gis nga alhamdulilahi rabbil alamin soo ko waxee ni yàlla dina naa sama jaam bi màggal na ma sama jaam bi tagg na ma sama jaam bi kañ na ma nga ni arrahmani rahimi yàlla ne ah sama jaam bi xam na ni maa am pouvoiru àdduna ak bu àllaaxira soo ni maliki yow mi diini sama jaam bi yàlla ni sama jaam nag jox na ma li ma moom maliki yow mi diini mu ni jox na ma ma li ma moom nga ni iyaaka naabudu wa iyaaka nestain yàlla ni wali abdi ma saala foofu day mel ne yaram mi day tàng danaan laajal ma jox la loo bëgg ma wax loo bëgg ma defal la comme yàlla xam li gën ci ñun gis nga boo doon julli ba foofu ñu bàyyi sa sago fekk du faatixa ñun la waxal loo bëgg da ngay wax leneen mais yàlla ñu la waxal rek ihdina siraatal mustaqim hidaaya mooy jub al hidayatu lo rek moo am solo ndax moo la gën a xam li gën ci yow mo moo tax mu dugale la foofu ñaan ñu la waxal ihdina siraatal mustaqim ñi ki lu mu am te amul njub njub yàlla teg ma ci yoonu jub siraatal lazina an'amta alayhim yoonu gaay nga xam ne xéewal nga wëlante mooy yonent ya saalixiina ya shuhadaaw ya ak l'anbiya ou yak mursalin غير المغضوب عليهم ولا الضالين يلا وخما يوني نيغا خامني دانيو داغا لينا ميري وخما يوني نيغا خامني دانيو رير المغضوبين موي يهودي الضالين موي نصراني وخما ньоญو سين يون وخما يوني جيفي وخما يوني نصراني استاذ واو dafa mel ni comme li nga wax ni yàlla moo ñu gën a xam. suñu bopp. suñu bopp. Mm-hmm. moo ñu gën a xam li gën ci ñun. te xam na ni lu waay mën a am. Mm-hmm. ku waay mën a doon. Mm-hmm. ak loo mën a am. te amoo ak njub. du baax du dox. Oh. moo tax mu sant la ihdina siraatal mustaqim moo tax sa maam El Hadj Malick wax ci sa juru xulóob bul tànnal sa bopp Mansour. bul tànnal sa bopp. déedéet nee na bàyyil yàlla tànnal la parce que mujjantalu mbir yi fàddu na ci yow xamoo ko. naa am oto na am oto naa am oto naa am xamoo boo amee oto oto bi fu mu jëm ak yow oh. yàlla xam yàlla su oto bi gënee ci man may ma naa am kër naa tukki déet am na koo xam ni tukki gënul ci moom neen yàlla su tukki gënee ci man naa tukki moo tax Moustapha صلى الله عليه وسلم ترندو مصطفى سلوساس ترندوني اللهم اجعل ما اشاء موافقا لما تشاء كي لا يسير ما اشاء مخالفا لما تشاء وما ان حتى اشاء قلا فما الله يشاء لو جاهد العبد وشاء ما كان الا ما تشاء فالطف بنا فيما تشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والله dafa daan wax yàlla maa ngi lay ñaan li mu bëgg man yàlla na tombeek mu mu mu mu mu dëppoog li nga bëgg sa dogal ndax xam naa ni li mu bëgg moom munte nekk tant que dëppoowul li nga bëgg ndax baatu wama tac aw na bi sa loxo la nekk al machiatu hmm. dogal hmm. nu mu ko neexee hmm. coobare mu amee ni mu waree ku ci loxo sunu boroom la nekk oustaz Mansour Fall kon yàlla yàlla defal ñu jàmm amiin yaa rabbal aalamiin ñu xéewal amiin yaa rabbal aalamiin sutura amiin yaa rabbal aalamiin profité di nuyu waa Rimbax yëpp daara ji ñu ngi ñuy topp ci émission bi ànd ak oustaz Moustapha Silla macha allah oustaz Góora ñu ngi maa ngi koy nuyu mhm. di nuyu oustaz euh, imam maam Góor Mbodj ci rajo bi la nekk wallaay di fi def émission par mardi mhm. di nuyu tamit euh, oustaz euh, tabarakallahu Pape Ñing mhm. di suma xarit di suma doom bàjjen di nit ku baax di nuyu Mbodj Ngoy ak maamu daara ji bàjjan ajaamati si la. Mhm. ak waa Ndar yëpp teg nuyoo bi ci loxo soxna Faa Mbay su ma ko joxee rek ak Xadija Mbodj eh, danañu ko jox waa Ndar yëpp ak ñoom Ngom ak ñoom ñëpp rek bàyyiwuma kenn nuyu naa famille mbax yëpp ndax dëgg-dëgg di ñuy def rëy na àjjuma bu jot ñu ngi ànd ak ñun ci émission bi Moustapha di leen ko jox. dëgg-dëgg loolu tamit am na solo nuyu tamit Pape Binta ñoom commissaire ñoom Pape Mbodj ñëpp maa ngi leen di nuyu tubaarakalaaw su ko defee Mansour ma bàyyi la nga ubbi sa lii allah. jërëjëf fajarti imam oustaz Pape Makhtar jërëjëf Serigne Moustapha Sylla ak mhm. mboolam waa mbax yëpp fa tabaarakallahu ni ko oustaz waxee rek noonu la amee ndawul lu rëy la su ko defee ñu nuyu leen ziar leen bu baax a baax a baax ñaan leen yàlla mu sàmm leen aar leen. ba mboolem li ngeen di naan li ngeen di nisar li ngeen di bëgg ca pénc ma mhm. yàlla defal leen ko ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyoo boobu nag di nuyoo bi nga xam ne mboolem njabootu Baye El Hadji moor ñoo koy jox waari mbax d' accord Mansour xam naa ni nag euh, li nga wax lu ñu bëgg ca pénc ma pénc ma di mbax nag jamono yi ñu ngay defar jumaa ja ñu ngi ca euh, liggéeyu jumaa yi rimbax ji mhm. ñu ngi liggéey ba xam naa du ñàkk sax benn émission ci kanam incha allah ñu invité waa rimbax incha allah ci seen liggéeyu jàkka jooju liggéeyu jumaa ji ñu waxtaan ci ak euh, adduna bi yëpp daal. incha allah ci kàttan yàlla ndax def nañ ci effort yu yaatu li wolof di wax ni ndimbal na ca fekk loxol borom. ñoom mhm. waa dëkk ba ak doomu rimbax yëpp fu mu mënti doomu rimbax mën na nekk kenn ku nekk yëkkati na lu am solo ci sa ñaq def ca. ba jumaa ja tey dëgg dëgg dëgg liggéey ba ñu ngi koy bëgg a door ñu ngi koy bëgg tàmbali incha allah ci kàttanu yàlla yal na yàlla mottali maa ngi nuyu Hadj Mor Niang si la mi yore social wu Rimbax e tool baak lu jëm ci wàllu social yëpp moo ko yor maa ngi koy nuyu baax moom tamit di profité ci occasion bi di ko ziar ak soxna Anta Ndiaye soxnaam ñu nekk ci Louga ak waa Rimbax yëpp rek Hadj Mansour. jërëjëf fajo si imam loolu day doon farata ci ñun ñu taxaw dalal leen fi incha allah parce que am na jaamu yàlla yoo nga xam ni xaaruñu lu liggéeyu yàlla ñu dugal ci seen loxo te ndegam ñoom euh, lañ la wax léegi moom moo ci nekk bay sa wu tànk ñoom ji ndimbal na ca fekk loxol borom te ku gis nañu taxawa xam ne ñu yaafu suñu ay jàmbaar dëgg lañu kon dafay jaadu ñu wax àdduna bi yëpp ci liggéeyu yàlla boobu kenn parce que du liggéeyu waa Rimba liggéeyu yàlla la ñëpp dugal ci seen loxo incha allahu rabbi ci kattanu yàlla foofu la ñuy jaarale nuyu leen ziar leen bu baax a baax Haj Babacar Sow boobu ba léegi ñu ngi naan ubbi leen téléphone yi Haj Babacar euh, moom it wadd ñu nuyu ko ziar ko bu baax Haj Babacar Ndiaye moom ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax foofu la ñuy jaar ubbi téléphone yi ànd ak auditeurs yi ak auditrices yi ci 88 628 10 95 88 628 10 95 ku ñëw rek ñu jël ko incha allahu rabbi ci seen émission waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Oustaz ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. Mansour sa waa ji takkul tey casque de moo tax yaa ngi nuyoo rek Mbaye Sow sa waa ji. wallaay ba man dana nuyoo yàgg na. sa waa ji tey takkul casque de déggu la de. ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. maa ngi lay ziar sëñ Babacar. di nuyu Oustaz Mansour bu baax di rafetlu waxtaan wi. Ah, di ñaan yàlla yàlla na yàlla dafa ñu dégg ak topp ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa amin ya rabbal alamin ah tey nag tomb bi ngeen laal dafa bari lool mm-hmm. te benn bu ci nekk doyoon émission spéciale mm-hmm. bismillah waaye yàlla na yàlla dafa ñu dégg ak topp rawatina fi ngeen déparé muy ci li xew ci jamono mm-hmm. jëm ci wàllu vaccin yeeg li ca aju nga xam ne kenn ku ci nekk ak gis-gis bi nga cay am ak wax ya nga cay wax waaye Oustaz Matar man bay saw yaakaar naa ne su ma feebaree fan laay dem du kër docteur. faju ji. déggaguma benn docteur wala benn scientifique. Mhm. bu génnee taxaw wax ne vaccin yi baaxul. Mhm. ñu mel ne man rek ñoo yor seen i téléphone di wax. Mhm. dégg naa ci sax benn imam benn borom xam-xam. muy wax ne coowal vaccin yi bu ñu ci dugal Seydil xaaji Malick. nañ ko ci génnee. oustaz ñun bu ñu nekkee njabootu Seydil Hadji Malick. te nga xam ne xew-xew bu xew tey. am na bu ko nuru bu xewoon démb. Mhm. est-ce que du ñu delluwaat ca la mu jàngale woon ak nam ca doxale woon. Mhm. amuñu ci sañ-sañ. Ah, yaakaar naa kenn kuy njabootam am nga ci sañ-sañ. Mhm. te la xewoon ca jamonoy mbas ma. ca peste ba. moo xew nii rek. parce que bee dafa ñëwoon di rey bii ñëw di rey. médecin yi indi woon vaccin yooya ñoo indi vaccin yi. Seydi Hadj Malick dafa wóolu woon médecin yooya. Mhm. ba taxoon mu ne njabootam bu leen xuloo ak docteur yi ci seen wàllu wér gi yaram. Mhm. parce que xam na ne ñoo ko jàng. Mhm. kon su lii xewee ñu ne bu ñu nañ ci génnee Seydi xaaji Malick. loolu yaakaar naa tooñ gu rëy la tax ci Seydi Hadj Malick. te ñun ñuy ay njabootam te lu xew rek bu ñu nattee jëfalinam ci doxalinam rek war caa mën a sukkandiku ba xam ni ñuy doxal ci suñu jamono kon yu mel noonu ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax da ciy am solo comme li nga wax rek ci départ bi léeg-léeg nit ki day contre ba contre loo xam ne njariñam la yooyu nag a ah nañ ciy bàyyi xel ndax it docteur yi ñun bu ñu feebaree ci ñoom la ñu jëm dëgg la de ku leen wóoluwul ci loolu nag boo feebaree bul dem ñu faj la mu jeex tàkk dégguma la de ma ne ku leen wóoluwul ci lii ñu ñu indil. Mhm. soo feebaree tëddal sa kër ne wóoluwuma docteur yi. Mhm. parce que boo demee da nga bàyyi ak sa yaram luñ la wax na la def ko nga def ko. dëgg la de dëgg la comme leen ci loolu ba pare wóoluwoo leen ci lii kon lu xew. Mhm. looloo jëla laaj. dëgg la. kon ñu mel noonu nañ koy bàyyee xel bu baax a baax. bañ a jaxase xelu nit ñi bañ a yàq xelu nit ñi. te comme li nga wax sànq. ku ko deful tey boo ëllëgee fu ma koy defee ji ngay wër waaye fekk mu jafe trop. wala xalaat naa ko de. am oustaz. <laughs> xalaat loolu mooy am mooy am. Mm-hmm. parce que ñoom loolu seen compétence yàlla leen ko may. Mm-hmm. nañ leen ko nangul. Mm-hmm. te li ñu ci wax. loola lañ cee war a jafe parce que it boo feebaree ci ñoom nga jëm. waaw kon nag yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. amiin yaa rabbal ci li nga jaar ci wàllu rajo beeg yëpp ak nga ne li ci am ak ak koor yeeg yëpp yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp. amiin yaa rabbal jërëjëf xaj Babacar xaj Babacar Sow bu Paxa Sow. ñu ngi koy ñëw na ñëw na ci point benn point bu am solo wax dëgg yàlla wax na dëgg wax na dëgg parce que boo feebaree tamit da ngay dem seeti docteur yi kon bu la docteur yi indilee dara loolu da nga ko war a. oustaz 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. xaj ñoo ngi lay nuyu di la ziara bisimilah. alhamdulilah kooku du sëriñ Abdou. Aziz Ba. xaj Abdoul Aziz ñu ngi laa nuyu di la ziar. Abdou na nga def. ñu sant yàlla baax na. ñu ngi lay ziar baax. alhamdulilah su woon sa bopp dañ indi alamaan bi de. ah yow ñu ngi jégalu bi laa xam nga nekk machine rek billaay wallaay. dëgg la la farata la xaja Abdoul Aziz bismillah. waaw ñu ngi leen di ziare bu baax a na yàlla nangu ziara. rafetlu émission bi macha allah jërëjëf jërëjëf. waaw yàlla yàlla yàlla may dégg topp amiin yaa rabbal alamin di ñaanal suñu baajoo rek yàlla yàlla yokk xam alamin yàlla wéral baadu alamin kontaan nañ trop daal macha allah jërëjëf jërëjëf a faratalal faratalal yaa ngi ci liggéey bi ñu ngi jégalu baax ci gëj a dugg bi alhamdulilah alhamdulilah di leen ziar ñu ziar waa jërëjëf seigne Abdoul Aziz di wote fële si Kër Mbaye Fall fa tabarakallahu ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla mu sam ko te doli ko tawfiix liggéey bi nak mu farata la wax deug yàlla ku mu tënk rek dañ koy nangu 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakatuh alxaaji Daouda Ndiaye bu sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha xaaji Mansour bu Cheikh Seydi Mouhamadul حداو دا نيغلي نوي باه دي زيار بام مختار سيلا بو سيرني عبد العزيز الامين بو شيخ سيد محمد المصطفى دي نوي امام الحاج تاع مختار سيلا بو شيخ سيد محمد المصطفى سي بو سيرني عبد العزيز الامين بو شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه جرجف جرجف جرجف باه دي زيار باه باه باه اها شيخ ماوتو ما جاتنا كارتو غسنا الحاج تاع مختار اه دي قال لك بامي جان سمتو دوخ دور نيوال امين دور جال كي لا يم xaalis Daouda de day loolu day loolu day tooñ la. Daouda. Ah, tere naa ko ba taay de. loolu day tooñ la. Ah, naa ko Daouda Ndiaye da Daouda Ndiaye bu suñu Abdoul Aziz Al Amin moom. Ah. Sénégal yi ñëpp xam nañ ko léegi. waaw ñëpp moom la ñuy wax. xaaj xaaj xaaj tuub naa ko bu noppi ne tuub naa ko. jërëjëf. ñaaw tamit waxtaan tamit waxtaan yëpp. su <laughs> dee ci yi moom. <laughs> man dama leen def passeport mais dara ci mbedd. <laughs> man daw la jot sëñ Abdoul Aziz Al Amin. déplacé naa sama bopp mais gàggante ko ci mbedd. am ku ne Cheikh Seydi Hadji Malick si. te gàggante ko ci mbedd. ay njabootam nekk fi. te mu paas na foofu man. parce que mon Cheikh Mahamadou Mansour. la bayk wóoluwul sa soxna. waaw. Depan dépense bi di la toggal waaw da mën ngay waxal non non daaw da xanaa mën ngay waxal wallahi wax bëgg Mansour ñu wóolu seen soxna ko kon dépense bi toggal lépp parce que boo ko joxee te wóolu ko bu lan bañ ba naka def ñu ah bu soo boo bu la sa bopp dee médecin nga daw dem ca fa nga daw fa bu sa loxo dagge nga nga dem ñu bandal la ko bu dee jigéen nga bu sa jabar bu dee jigéen bu dee mat fa nga jëm aha bala dina wolu ko leen tet tet aha Mansour alam Ndiaye nee na kon yéen yi dal caaxaan nga bëgg wax caaxaan ak fol ak Mansour ak politique bo xam teggu ñu ko kenn daw ak ñu leen neexal ki ma neex rek tet tet tet tet haj daawda aha ko nee naa ñu benn wala dañu waxtaan bu ne man duma ñak ñàkk da nga ñakku aha ba moo tax na ko yow wóor na ma ne bu xalifa bu ñàkk da nga bu ah. xalifa bu ñàkk am mu ne ko da ñàkk yow jib na koy bu ci wax da nga ñàkk mhm. ndax xalifa bi lu muy digle moom waaw da koy def donc mhm. ba masque yi ñëwee mhm. ba léegi nii noo ko loo ko gis muy def takk masque am kon man la muy na nga ca kon nañ bàyyi yenn caaxaan yi jërëjëf xaaj Daouda bàyyi politique bi tey wax nit ñi li jëriñ nit ñi mais ñàkk yi baax na ñàkk yi baaxul ak tool yëpp geneen détail la. Mhm. yàlla soxorut ci ñaanul. Mhm. te nit ki nekk da ngay seedal jikkoom. tëdd mhm. moo tëj boo xam ne ci ko tëli bi. ab patam fil ab xaj. da nga ko mettul ab xaj bu ko otti tëli rek da nga am day sànq la xaj bi otti rek fiix. xam nga bakkalu doomu aadama. tey nga nekk Sénégal nekk Sénégal. a kaddu xam yow daanaka yow sa dund matatu ko. te te te te te. bu dee ci wàllu mhm. dafa ñoo bëgg. ndeysaan. dafa ñoo fonk. ba tax mu ne lu kenn mënul. ndeysaan. vraiment li la yàlla wax ni mu demee man tawadaa ku njàpp. sa as a alu doo njàpp ma. Mhm. soo masaa nga dox. Mhm. ilal masjid di jëm jàkka ja. masalla julli. maanaam mu ja. afalahu dañ lay jéggal mhm. suna boo say bàkkaar mhm. dañ taxa ba mu jeex tàkk loolu foo ko mën amee ban jaam yàlla nga ko mën bu dul julli wallahi tey yàlla ne foofu dama laa léegi ah sama njaam si waa foofu da xamaa d'accord dañ ne Mansour ëllëgee yàlla kenn du ko ëpp yërmale si jaamam bi Mansour ñëpp d'accord bu ëllëgee bu ñu la njëkkee Mansour julli ga baax sa xel day daal dal commence am yaakaar mhm. waaye ñëpp nañ ne bu julli ko baaxul moom. te xale daal di ko wax ñaaw njort. kon kay xam kon julli foog foor na ci nit. julli lu rëy la ci nit. wala yàlla jaamu yàlla yëpp dafa dafa seen am indil ko ko. ñoo indil ko ko ba mu desee julli nag moom. na ko ah kay fekk si ma. te ma recevoir la kay fii man. li ma lay jox dafa rëy ci man. li ma lay jox dafa foor ci man. li ma lay jox dama ko fonk bëgg ko ku ko baaxal si lépp baax ko koy sàggal si lépp bon. Mhm. kon kay jël ci julli. moom yàlla yonent bi jox ko jox ko juróom julli ñu ne téeméer nga ne bu di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba ci juróom. Mhm. sang bi nag am naa kersay dellu. Mhm. di ko wàññi lu ji. yàlla na juróom yii ma leen bàyyeel. ñu ko defee ni ñu ko bëggee. ngeen def ni ko sante ma mhm. fay leen yoonu yi ma leen digoon mhm. te yoonu téeméer yi ak yi ak suñu téeméer bokkul mhm. Mansour nañu sankat julli macha allah Mansour yàlla neen julli moom nee na asalaatu jul iman bi mooy fondement diine wallaahi waaw sama aqaama képp ku taxawal julli aqaama diine taxawal nga diine waaye fa man haada képp ku ko mabbu haada ma diine mabbu nga diine wallaahi wallaahi moo tax seen suñu sëñ Cheikh Seydi Mouhamed Moussa lan la daan wax. pour ne bul julli. soo yoree kurpañ. na dal. soo yoree kurpañ. na dal. soo gàddoo kóor. na dal soo yoree yat. na dal. ndeysaan. bu bu wooma mu dóor la la. ba pare ut ku la dóor le. ut ku la dóor le. ndax tere gim la ko tere. ndax waaw ndax seulement julli du caaxaan. Mansour bu tollu gis na Mansour tey jii julli bi ñu julli. Hmm. tey jii man mi dox ak yow su ma demoon tey seet si Moustapha ca Saalaam. waaw su ma la yónni ca Saal ba. Hmm. di bañ fay sama téléphone ba dootul sone ndax bañ mu ci kanam sëñ bi. waaw. da fay fay sama téléphone daal boo sëñ Moustapha ñëw dix heures. waaw. bu mu am benn ngant dëgg dëgg dëgg dëgg ngant dëgg dëgg auditeur bi luñ ma. jiitee hmm. may fekk. léegi yàlla na la jullil deux heures de quart da nekk ci di taxawaalu di fo nekk ci télé yi ba quatorze heures ba quinze heures ba seize heures dem sax na koy def sax la yàlla xam doy na mhm. dem julli boo xam ne yaa ngi teg sa téléphone kon kon xaj daaw da nga bëgg a wax ni gars yi li ñuy def ñoo ko tey de moo li ñëpp li ñoo ko tey moo li gis ñoo ko tey kon li ñuy def ñun ñoo ko tey ñoo ko tey ñàkk julli si waxtu bi ñun ñoo ko tey ñaa ko jox ñoo ko tey. ñaa ko jox julli gi orma yi mu laaj ñun ñoo ko tey. ñoo ko ñoo ko tey. Mansour la ngay xam ne gis nga bu ñu nee Max Barça Real ne Bamba ca jëmit exemple ñu ngi ba 17 heures. Mansour ñu baaree doon wàcc nañ ci suñu place. profito. profito avant 17 heures fekk leen seen kër. toog xaar ko toog xaar ko. professeur Demba Ndiaye. bu Sénégal def bal bu Sénégal def bal. bu nee 16 heures la ñuy fi bal. kër goo avant 16 heures moins 20. ñëpp nga jàppale télé yi. Mm-hmm. tey pourquoi waxtu julli bi jotee duñ ko def nañ ko nañ ko nañ ko sante. moo tax sa maam Seydil Hadji Malick Sy. radiyallahu taala anhu. mu ne Sénégal mën naa waat ne allah ba kàbb julli bari na fi. mais mm-hmm. est ce que julli dëgg dëgg am na fi ba fi bari. ñoom ñoo ñooñu ñoo xam ne ñu jullee ñooñu ñoo xam julli. macha allah Haji Daoud. julli goo xam si ne même pas cinq minutes nga tas tasee ko dem. wallaay naan mat naag matul ak ëpp naag ëppul. ndeysaan cey ñun dañuy teewaat julli yi. cey ñun. di joxaat yàlla lim moom. Mm-hmm. dañ jaamuwaat yàlla. Mm-hmm. te jox kenn ku nekk Mansour la Mansour moom lañ ko ko jox. te uh-huh. tax Makhtar Sylla moom nañ ko ko jox. Mm-hmm. Sénégal kenn ku ne am nga loo xam te wóor na la boo duggee seen nekk xam ne lii mooy def Mansour Fall mu ko dàq fuuf. jox ko. wallaay ndeysaan loolu la nga ma nga def mooy wàllu ñàkk yi médecin yi ñoo ko jàng mam Seydi Hadji Malick si dundam lan la mujj wax si démb woon tey maanaam jàng ci médecin waaw parce que xam na xam na ci nekk njëriñ li ci nekk Mansour yàlla daf dégg jërëjëf Hadji Daouda ñu ngi gudd te am nañu nekk ci ligne bi macha allah li si dëng lépp ngeen wàll ñu ko jéggal ñu ko baax ba imaam Hadji Ahmad macha allah Hadji Daouda lépp rafet na Hadji Daouda macha allah am na solo lépp rafet na man bima ci daaneel rek moy so wóoluwul sa soxna loko joxe sa dépense so Omar 88 628 10 95 bul bul bul bàññi sama waxtu yooyu waaleykum salaam wa rahmatullah maa dellu si waat xaj bismillah waaw kay rek li ma doon bëggoon rek xaj Babacar bismillah waaw kay ma ne xëy na li ma bëggoon man su ma masala sariya waaw dama ko laaj professeur Seydi. doo ko ko laaj. déedéet du ma ko laaj docteur Mohamed Ndiaye. doo ko ko laaj. du ma ko laaj Daouda Ndiaye scientifique. Mhm. oustaz Pape Makhtar Sylla laay dem laaji ko ko. Mhm. wala oustaz Alioune Sall wala oustaz mhm. ndax ñoom ñoo jàng lool ba am domaine boobu. kon nag wàllu wér gi yaram su ma ko amee du ko laaj oustaz Pape nag dëgg-dëgg. déedéet. xëy na yooyu tamit day jar nit ñi xàmmee ko. kon li li yàq coow li mooy ñi siy waxte du seen domaine. ñi warta wax di wax. ndax sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz dafay wax ne wax dafa am ñetti tànk. mooy na fekk ne yow mi wax yow yaa war a wax. muy benn. na fekk ne lañ ko war a waxee. muy ñaar. na fekk ne ña ngay waxal ñoom nga war a waxal. muy ñett nee na ñett yii bu dajewul ci yow rek bul wax. yooyu nag dafa mat a bàyyi xel bu baax sama classe gi war nañu ànd ak. defal. 300. ku wóolu defal ku wóoluwul bàyyi. Babacar dafa mel ni yaa ci marché bi. te bàyyi wax ji waaw. yal na yal na yàlla barkeel. amin incha allah beneen bi ci des di jaajëfal oustaz bu baax li mu ñu indi ci wàllu rajab. ak façon bi nga xam ne moom la ko mag ñi fonk woon daan ko doxale yépp mhm. ah loolu nag ñaax la ci ñun ndaw ñi ku mel ne yow Mansour Fall li mu wax ci Baye Mor lay na ñetti weer yëpp la daan woo. te yow kenn mënu laa wóorloo ba nii. waaye na ñetti weer yi moom dénk naa ko Baye Maodo. soo ko soo ko mënoon a nga ko wàññi loolu nag la ci saa loolu rek la indiwaatoon de dara indiwaatu woon loolu rek bi nga mujjee rek moo lay indiwaatoon xaaj Babacar Sow ñu nuyu ko ziar ko ma nga ca téléphone ba. ma ngay ci miftahul huda waaye ma ngay waxaale client bi yal na yàlla barkeel ko ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ak hajj daoud ndjay bu serigne Abdoul Aziz salamin ñom sa su nek dañuy dolli émission bi ñom hajj khalil ñom ñep suñu ñëwé rek da ngay gis ni dañuy dolli wat émission bi la nga xamni mo déso ñu ñëw complété ko fatabarakallah yalna yàlla fay leen yiw ci barki yonent bi ñu nuyu mboolem ñoom nekkandooloon fofu ci pak Lambay ñoom nekkandool fofu ci pak Lambay ñu nuyu leen ñom hajj Modou Fall suñu wayjur ñom xaaji Ibrahima be ñu nuyu leen ziar leen bu baax baax xamna fofu lañuy la jaare lañ ñu la woon ci waxtu foofu la yem ñaanalaat suñu directrice Seyda ñu Maba yàlla sàmm ko dëgëral ko bàyyi ko ak monsieur Gange ba ba 127 ans yi commencé ren ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doon leen tawféex jox auditeurs yeeg auditrices yëpp rendez-vous vendredi bi ñëw incha allah même heure même fréquence wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.